dégg sax tey communiqué ministre de la santé dafa jël yeneen matuwaay pour dénk tey euh, gouverneur yi pour ñu circonscrire li nga xam ne ne moo wër ci seen région ñu jël ci ay matuwaay pour protéger li nga xam ne ne mooy euh, feebar bi. kaaw Kër Massar bi commencé nañu inquiété ndax diggante Kër Massar ak Tëngéej euh, li fi dugg ci suba ak ngoon ci wàllu ay oto di jóge foofu di ñëw fii ëpp na dayoo. te ñëpp xam nañ ne euh, Tëngéej juróomi cas la amoon te juróomi cas yi dem nañ ba circonscrire ko euh, yaakaar na daal fukki fan a ngi nii dara tegu si loolu xaw naa xaw a dal sax xel ñi bien que ñu ni bàyyiwuñu xeex bi wante xeex na doo ko xeex ba fii euh, ñu bëgg ñu indiwaat yeneen problème moo tax alerte nañ autorités yi pour que ñu xool yan mesure la ñu war a mën a jël pour vraiment xeex li nga xam ne mooy feebar bi bañ law surtout ay cas communautaire la su ay cas contact wala ay cas euh, importé loolu du indi problème mais cas communautaire la kenn mënul maîtriser te ñi di dugg si oto yor ko te xamuñu ne dañ ko yor suñu ñu wàccee fii si département bi dugg si Tëngéej dugg si marché bi cas communautaire yi dañuy gën a lal. law boobu nag mooy musoo bi nga xam ne moom la ñëpp ragal donc loolu war na tax ñu def alerte alerte boobu defe naa ne tey si suba ba léegi préfet du département de Pikine jël na ay matuwaay ndax fi nga xam ne ne mooy lieu de fréquentation bi ëpp solo si euh, Kër Massar muy rond point bi. ci ndigalu si xalaatu maire bi jël nañ fa ay dispositions ba gendarmerie ñu ngi foofu euh, ñun nag li ñuy ñaan mooy ñu gën a renforcer contrôle de sécurité yi gën a renforcer dispositif bi nga xam ne dina taxte ñu di jógee Kër masaar di dugg Tëngéej bés bu jot ñu bañ a indilaat feebar bi nga xam ne ñun suñu xel mu ngi si bëgg dal si département bi.